également que ne Ousmane Sonko euh, tête de liste. apparemment Barthélémy fait très peur ah il fait peur xabilaam mooy Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz mooy xabilaam xam nga dama tekkee ko noonu xabilaam mooy booy bi def nii musul wax te nekk star Barthélémy Diaz durant six mois yu nguur gi waxul mais moom mooy téye gémbe. il a parlé autrement. il a parlé autrement de ouais. par ses réalisations. il travaille. Mmh. de bruit. avec une budget mais euh, ñoom saa yu ñu xëyee. c'est discutable ça. saa yu ñu xëyee ndekki Barthélemy Diaz añ Barthélemy Diaz reer Barthélemy te kooku waxul Barthélemy Diaz dérange Barthélemy fait peur bien sûr parce que il fait peur xam lu na le bilan à mi-parcours bii mu def <laughs> Bamba dafa am ay maires yi fi toog ñu kenn ñemewul def bilan à mi-parcours. deux ans et demi mu ñëw wane de réalisation yoo xamante ni benn maire mosu ko fee def. réalisation fu mu ko def. d'accord centre dialyse boo fa demee fii Liberté di nga ko fa gis. boo demee lycée Ousmane Socé Diop ñu ngi koy defar. lycée technique euh, lycée technique boo demee fii ci Grand Dakar Barthélémy Dias mu ngi koy defar les toilettes publiques boo demee fii ci Padois dem ci garage oto yi Barthélémy Dias teg na ko fa. boo demee ca Masaalikul Jinaan ak yeneen i euh, euh, maison religieuse di nga fa gis waaw ma yeggali yaa ma laaj de mais félicitations à part aussi ainsi ces actes récemment ci Touba bi on l'apprécie mais Dakar c'est le bordel en absolu Dakar c'est le bordel en absolu ban bordel Dakar et l'État mais jërëjëf s'il vous plaît jërëjëf ah, problème assainissement kan moo ko yore problème moo ko yore exactement moo ko yore état moo ko yore waaw état moo ko yor assainissement pour yow bi mu faloo. il a eu. jërëjëf jërëjëf Barthélémy Dias a écrit le président de la république Bassirou Diomaye Faye ne ko recevoir ma maag yow ñu waxtaan xam lan mooy problème mu Dakar. ñu àndandoo liggéey ko pour l'intérêt des Dakarois. lan la ko lan ko tontu naa am ku ma la booleel. non non non non non loolu ko tontu. xaar ma wax la lu mu ko tontu. loolu la ko tontu Barthélémy Dias loolu la wax. ah bàyyi ma wax la lu mu ko tontu daf ne ko. Mhm. le le ministère le ministre de de de de de de l'urbanisme. tu vois. waaw moom mooy seen responsable. si tu as des choses à dire. non non non mais moo yor secteur. de secteur de. Barthélémy Dias est une institution. le président Bassirou Diomaye Faye institution la. mais nag am na mais nag am na ministère de tutelle boo xam ne. am na ministère de tutelle mais ay ministère. mais mais s'il y a des possibilités d'échanger avec Diomaye directement. bu ñu ñëwee aussi war na échanger ak Diomaye. loolu je pense que je pense que président n'est pas quelqu'un boo xam ne. malheureusement au Sénégal quand quand tu es un maire te bokkoo ci parti au pouvoir bi a koñaas ci suuf mais Barthélémy Dias nee na leen tëj leen bunt yi tëj leen parenteer yi du tere ma liggéey. te mu ngi liggéey. beneen bi waaw man la man moom foo ma cuq rek dinaa la tontu jóorin. baat moom dafa neex a défendre. def fi dara ak neex a défendre. dama ne Dakar laa def waaw Touba waaw Touba waaw Touba dañ ko jaajëf. remercie waaw Touba dañ ko jaajëf. waaw Touba mën nañ seen bopp. fii gisoo fi mën nga. élément si fi gis c'est parce que Barthélémy Dias bi mu demee Fass canal Fass bi daf dafa jël ay responsabilités am balaa nawet bi di ñëw dafa raxas canaalu Fass bi yëpp. les images sont lépp la dindi moo tax gisoo fa benn ndox bu fa daa mon frère may ndox bi bu ñëwee day jàll ci canal bi dem yoonam. ba ma dama ne. Euh, gis nga Barthélémy Dias il fait beneen bi ñuy taxaw naan ay. kan lay du bokk ak kan kan kan day bokk day bokk ak du bokk. <laughs> Ousmane Sonko nekkoon opposition. ànd ak Barthélémy Dias dafa toog ci plateau ni sa dossier da Ndiaga Diouf dossier purement politique. musuma gis politique. Macky Sall waxoon na ko merci beaucoup musuma gis dossier bu bu mel nii boo xamante ni duré na 12 ans lu kenn musul gis. dossier bu ñu doon traîner di ko traîner di ko traîner 12 ans mooy dossier bi gën a yàgg ci histoire politique du Sénégal. oui 10 ans ko après. waaw Ousmane taxaw dénoncé ko ne lii dossier politique la tey Ousmane ko moo nekk euh, ci ci pouvoir bi. nous allons voir. oui dama ni. Barthélémy Diaz rek ñoom ñoom président Macky ñoo ko. ma ne Barthélémy Diaz présidentielle yi passé. cour de cassation boobu ngay wax bu xaw ma cour suprême bi ñu kasee verdict bi Barthélémy Diaz te te terewu koo voté ci présidentielle bii passé gis ñëpp gis nañ ko mu dem voté def déclaration am normal voté ku ko neex. léegi parce que Tata Amina ko ci Tata Aminata moo ko ci moom moom nga ne moom moo waroon bind pour ñu jëlee ko ci lu tax bu pouvoir bu bees bi ñëwee def fi 6 lu tax jëlee ko ci. bu ko defoon ñu ne bu ko defoon ñu ne day fayu. ah voilà. bu ko defoon ñu ne day fayu. léegi yow xaaral noonu nag. kon fayu ko man dama lay wax benn affaire xaaral ah. Barth mënoo ko yaa ngi naan yaa ngi naan dualité mënul am. ay jëwriñ jëwriñ c' est Barthélémy Dias qui s' est battu contre Abdoulaye Wade Macky Sall xaaral wax la waaw Bamba Bamba t'as pas posé la question vrai quoi Bamba Bamba t'as question vrai Bamba a. Ah, ci teg yu leer nañ yoo xam ne doo ci dindi dara. yow bilan Dakar nga fi bëgg a def yow. Eh, bilan de jéggi naa eh, bilan. Eh, mais maire fii duñ fi jógee. il doit donner le bilan de Bamba ci barke Sow ci barke Sow ci barke yàlla xam nga xam nga yàlla rek kan moo fal Basiru ci yàlla yàlla moo fal ñëpp xam nga si Sonko Sonko Basiru kan moo fal yàlla si lu ko fal juri mu ñu yóbbu foofu day wa allez mais allez allez do do do cadre do cadre juri mu ñu yóbbu foofu wa allez c'est bon Barthélémy Dias il s'est battu ñu ñëpp gis nañ ko en étant jeune jàkkaarloog Abdoulaye Wade ak ni Abdoulaye Wade toll jàkkaarloog moom xeex ak moom ba tax tey dossier Ndiaga Diouf bii xew fi Macky Sall ñëw défendre ko Abdoulaye Wade daanu Macky Sall yéeg fekk ko ci kaso bi def ko député mu génn gis doxalin bi ni neexu ko ànduma si mu génn parce que nee na PS bëggul mu nekk comptabilité ci gestion wu Macky Sall mu am fit génn batt bi ñuy dàq xalifa Sall PS bi ñu dem di wu ci Benno Bokk Yaakaar mu génn ne man du damay génn ànd ak Khalifa mu metti loolu su ko neexoon dem toog ànd pouvoir bi batt bu muy dugg PS fekk na PS daanu mu ñëw di créer convergence socialiste il faut ngeen nangul waa ji cursus politique am. ay c'est un politique ngeen bëgg ko ngeen bañ xam ngeen ay bêtises ngeen ngeen am non c'est parce que ngeen am euh, Diorine yéen <laughs> maanaam yéen ku ngeen faral la ku ngeen dem ba mere ko ci mere waaw waaw ku farul ak Sonko baaxul maanaam te Sonko lu ko boolee Barthélémy Dias lenn la politique képp mais Barth daa soutenir Sonko de Sonko yaa ngi koy wax léegi. Barth dafa soutenir Sonko sax Sonko bi mu ñëwee non dafa ndànk wax la kay. gis nga Barth li muy caas. day wax loolu politique bi Sonko nekkee fii gars yi di ko sonal Barth wàcc na xeexal ko Barth dóor paaka poignard Sonko taxaw fii wax daal ci ginnaaw kan moo ko kan moo ko dóor paaka poignard s'il vous plaît Baba s'il vous plaît mais s'il vous plaît en tout cas aussi on doit remercier Sonko de moo njëkk a sol dàllam dem seeti Barth waaw ma ne s'il vous plaît ma ne Ousmane Sonko moo njëkk a sol dàllam dem ah. seeti Barth li ñu jaar ca mairie Mermoz Sacré-Cœur yaa ngi wax léegi naan ci Barth Sonko la faroo bi 2009 bi Barth di falu ana Sonko bi muy am deuxième mandat ana Sonko. fan fan la ko amee. bi muy falu commune Mermoz Sacré-Cœur boobu ana Sonko. commune bi commune Mermoz Sacré-Cœur bi muy falu député ana Sonko. yow commune Sacré-Cœur boobu da nga dugg si dañuy defiyee waxtaan bi de diggante boo ci duggee daanu de rapport bi épinglé dara le départ de Moussa Tine également. gars yi ils ont peur. on diggante Khalifa Sall ak Barth ba laa bëgg comprendre qu'est-ce qui se passe quoi. dañu ne diggante Khalifa Sall ak Barth quest qui se passe. dara xaw ca jàmm ak salaam. di tax ñu tàqali ko comme ça. tàqali ko wuñu dara xew ci. Khalifa Sall li def. Diomaye dañoo xuloo yaa ngi koy def de. non non non Khalifa Sall ci ban liste la. yaa ngi koy def de. Khalifa Sall ci ban liste sàmm sa kàddu. yéen a ngi taxaw fii di indiwaat ay tamit ay thèse naan non waa PUR waa PUR démentir nañ leen ngeen taxawaat naan non waa PUR nee nañ bokkuñu waa PUR ils sont dedans yéen a ngi bëgg a tilimal affaire coalition bi moo leen tiital nii. mais PUR gën nañ ko ak intercoalition bi. PUR gën nañ communiqué en communiqué weddi nañ ko léegi moom laa doon déglu bi may ñëw. Hmm. weddi nañu communiqué bi de A à Z sëñ Moustapha Sy sàmm sa kàddu la àndal PUR ba bañu ko sax ba ki nekk pur moom mooy mandataire bi gis nga léegi sàmm sa kàddu yéen lenn moo leen sonal bàtt fiyaay lenn moo leen sonal parce que yéen unique Pastef ak ses souteneurs rek lañ bëgg ku àndul euh, euh, na faru fu ko neex nañ bàyyi Ousmane Sonko mu defal lu ko neex léegi yéen partage pourquoi ngeen bëgg koo tënk ne yéen dafa war a ànd ak yéen par force ngeen naan ay paaga dañu fi taxawoon yeewi askan bi yéen a ngi wax naan parti du dualité ba yeewu askan bi bu taxawee c'est grâce à Barthélémy Dias moo dox lépp ba yeewu askan bi taxaw ba tey ba tey ñu dem. ok c'est am am ay député ci biir assemblée nationale. dama ne la Barthélémy lii parce que xeex moo fi amoon di reyante mu ne les morts ça suffit Barthélémy Dias kenn gënu koo bëgg xeex mais dafa ne woon morts yi c'est fini. mu dem di waxtaan pour. mais léegi daan bi ko daan élément élément. élément daan daan bi ko daan ci wàllum justice aussi. réew mi ci waxtaan la mujjee. élément daan bi ñu ko daan daan bi ñu ko amaan na ay dee amaan na ay mort. élément Barthélémy Dias avait raison pour dem dialoguer dialogue mooy defar réew gis nañ fi ay réew doon tàkk dañoo dialogué pour mu dañ c'est bon bàyyi nañu tilimal doomu jàmbur c'est bon jërëjëf merci beaucoup un sénégalais il s'est battu toujours pour le Sénégal jërëjëf c'est bon dañ ko ci kaso bi yóbbu Tamba yóbbu fu ne jërëjëf allez ah, bon dañ bàyyi loolu on est en démocratie nangu leen ku nekk vision am nangu leen ku nekk li mu gëm élément c'est bon maintenant nag ñu dem ci ay élection yu leer ngeen bàyyi baat mu bokk bu fekkee ni yéen a ko mën élément boobaa on va voir ok élément euh, leader am lay def l'intercoalition va ñu jàll <laughs> ñu jàll sur le cas également de Maître Moussa qui a porté plainte oh, euh, ki nga xam